loolu dox seen diggante dem ba doomam yëkkati njëkkee cër may ko ci jabaram tey nag ngénte li gis ngeen ko bi mu def ñëw wuy si en tant que première njëkke mais en tant que doomu Mansour Mbaye ba jaaga yàgg ci kër gi mu jàngal le sama jigéen maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay Baye Diop maa ngi lay nuyu bu baax di am te teew bi ñu tase fii tase bi ñu tase fii maa ngi ci kontaan lool di leen nuyu yéen tey ni ma ko waxee sa diggante ak Père Zora avant ñuy ñëw ci cër bi. loolu diggante baay ak doom la loolu kay jaratul sax may nekk di ko expliqué waaw diggante baay ak doom la man sama papa la sama xarit ndax cër bi ma am fii ci kër gi bu ko neex loolu ma fi am. duma ko am ndax du man rek la fi jàmm mais sant naa yàlla bi ma boolee ci njabootam te ba jàpp ma te bàyyiwu ma maa ngi koy sant di ko gërëm ñi gis ñi mu formé du yow kese bari na mais sa diggante ak moom tarbiya bi moom ci ni mu koy waxee ni nga ko déggloo ba tey mu am fierté ci yow saa yoo la gisee xam ne kii sama projet. waaw dëgg la noonu la parce que dama ko jox cëru baay ba pare jox ko respect moo xamante ne ki la jàngal métier bi mënatoo koo fay boo xamante ne tey jii mën na laa yor yor sa bopp kooku mënatoo koo fay amatuma fayam ci àddina rawatina mu jël ma bët yooyu yëpp def ma doom boole ma ci njabootam xëcc ma fi may liggéey xamal ma ne ma man maay sa baay donc loolu ñu amat ma fayam ñu dem ba looluy dox nga am cër ci biir këram ñu yëkkati première njëkke jox la loolu daf ma neex te sama jabar ji bu sëy si woon tamit te yëgu ko du ma du ma may naqari mais ma sëy mi ngi may mi seet mi ngi may woo mi ngi may yekkal mi ngi may andil tànk xar ànd ak jëkkëram tabaski bu jotee daf may andil tànk xar ànd ak jëkkëram ñëw ba sama kër boole ko ay tissu yu bari donc aw ma fayam ma koy ñaanal lépp lu muy jeex ci kër gi rek yàlla na ko fi fekk yàlla na njabootam ñëpp barke barke na bi Moustapha ma kontaan loolu rawatina jëkkëram ndax jëkkëram bi mu may wax loolu yàgg na boobu ñu ngi gën a nekk xale bu ma may jabar yow laay may premier njëkk ndax gis ni nga teewee samay waajur sant naa yàlla bu baax sa diggante ak yaayam di Lalla tey gërëm na fii ba jooy xol yëpp tooy taa dafa baax xol bi dafa rafet moom sunu yaay la moom dafa baax mm-hmm. taa dafa baax lool njaboota ñëpp nag mm-hmm. pare ñeme njaboot baax loolu bëgg ma waaw mm-hmm. ah, bi ma Père Zora andee teg ma ci loxoom ba tey moom it mu jàppee ma ni doom bu ma jàppoon ni neneen tamit ndax jigéen moo yore kër kon du ma fi xaj ba heure bi waaw mu def ma ni doom moo waral ma xaj fi tey ba heure sant yàlla même doomam bu ma bëggoon jox cër mu ne ko du am tey du am ndax jigéen moo yor kër waaw mu ànd ci nag bu ba léegi toogul taxawul tur bi ñu ko jox sax du ko neex bu sañoon tey day toog dégg sumbulu mais lu ma waxtaane la ak doomam ñu waxtaane ko ba tënk ko jox ko ko moom dara jalee am ndax jigéen moo yor kër waaw mais mu ànd ci nag bu ba léegi toogul taxawul tur bi ñu ko jox sax du lu ko neex bu sañoon tey day toog dégg sumbulu mais lu ma waxtaane la ak doomam ñu waxtaane ko ba tënk ko jox ko moom dara jalee ko cër ñu bari ndax nee nañ première njëkke moom la ñuy tuddee doom waaw mais ñun ñoo ko waxtaanee delloo ko cër bi ndax amuñu fayam ki la jur sonn lool ba comme moo taale di expliqué da doon jooy nee na dafa sonnoon lool xamul woon ne sax di dund dina ko fekk ba yaayam sonnoon ci moom lool bi mu nekkee xale xam nga loolu doom ju koy fàttaliku sant yàlla la man bu ma gisaatoon sama yaay waxuma la tur sax waaye doy na waar daal lu ne laay xalaat ne bu ma ko gisoon dama koy def donc sant yàlla la duñ la bàyyi en tant que artiste ngay jàngale boo génnee ci télé bi di yeete surtout jigéen yi fan yi coow li bari na ci réseaux sociaux yi ci dóorante bi sëy yi jigéen ñi kii génn ne sama jëkkër dama doon dóor lii la ma doon def ñii ne ay vidéo boo gisee loolu en tant que jigéen um lay waaw du la neex ndax képp kuy sëy jàmm jàmm moo la tax a jóg da bëgg am jàmm ak salaam ak sa borom kër te jigéen bu yàggee ci sëyam rek ci ku góor ki la ku góor ki moo ko muñal kere rek bi may def 4 ans de mariage ci fête anniversaire maa ngi koy wax sama jëkkër naan ko jigéen bu yàggee ci sëy rek ci ku góor ki la ndax am na nu mu lay téewee ku jigéen ki day daaw am na noo ko téewee day daaw wala tey ji am na jafe-jafe yoo xam ne xajul ci sëy daal nga jàmm salaam rek moo xaj ci sëy kaf moo xaj ci sëy ngay gis boo meree sa jëkkër sa da ngay kon jàmm rek moo neex kon ñuy ñaan góor ñu nañu yërëm jigéen ñi ndax ñun ñoom ñooy suñuy góor kon yow góor nga balaawe déedéet ma jom baa ci ma taar bare surtout la jor jób maa bàyyi maam jaara moom tax na mun maa wax dara góor ndax àdduna yëpp gis nañ ni ma jàppee wax dëgg fa yàlla ma koy sant di ko gërëm di ko ñaanal mais dama ne góor ñi comme li may gis moo tax ma wax la góor parce que bu du woon góor bu du woon jigéen ñi du doon góor ñi waaye bu du woon góor ñi tamit du doon jigéen ñi ci ñenn jigéen ñu sikki ñi ñoom it nanu régler te respecté góor ñi non ku ci nekk yaa nga def li nga bëgg a def loolu du man maa koy ah maas loolu ngay laaj xam nga mu ne ndax xaas mas na laa dóor ma ne ko loolu. xaas <laughs> ah, boo ko gisee muy dox sax nga xam ne. maa say laaj. xaas xaas ah, boo ko gisee muy dox sax nga xam ne moom ndeysaan nit ku sedd la. waaw moom bëggul sax ay wax ju bari. Mhm. moom wax ju bari moom nee na ma damaa bari wax sax dèjà nee na ma damaa bari wax. <laughs> moom nitu jàmm la yéen ñi ko xam sax xam ngeen loolu ci moom moom nay kaf nay foo nay ree boo ko naree andi ay problème sax day daaw moom bëggul problème moom waaw yàlla bu ñu egg foofu ci àddina waaw loolu rek la ñuy ñaan yàlla bu ñu egg foofu waaw yàlla bu ñu dund ba egg foofu daal laay ñaanal leen amiin amiin mais gis nga ngeen lancé lu bees laalaake Sénégal yi ko mais loolu lan la non laalaake laalaake lu doy waar pièce bu doy doy waar vraiment très bientôt ñu ngi ci tournage bi très bientôt rek ñu diffusé man am na lu ma ci jot a <laughs> incha allah léegi ñu diffusé ko bu soobee yàlla. ñu gis foofu beneen sumbalu boo xam ne bokkutoo nag bi ñu xam. yow kay gisagoo dara bande annonce rek nga seet léegi bàyyi rek bañ seetaan ko dinañ xam sumbul bi nga après ñu defaat ko. kontaan nañu. <laughs> waaw jërëjëf merci beaucoup.

xew boo xam ne ki koy xewal ak sufian ba pare jëwal mu ne moo tax am na problème am na nu ko waxee daal donc benn problème am na ma comprendre ak lu ma xam la kon la joor bi sama ak jëwal bi la jaar waaw waaw waaw bu la neexee bu la neexee nga wax ko loolu waaw waaw waaw boobu joxe la laaj. parce que boobu joxe la laaj waaw. jërëjëf. barkaala kon waaw bu ko neexee mu wax ko ndax jërëjëf la la jërëjëf la jërëjëf jërëjëf am na si jërëjëf jërëjëf barkaala jërëjëf di nga ñaan laal ah problème yaa jërëjëf la jërëjëf jërëjëf waaw jërëjëf barkaala

ndax woote na woo na Serigne Fallou woo sëñ Massamba woo sëñ Mbacke Bousso léeg-léeg li ci nekk askan wi jëlewu ko sëñ Massamba xam ne moo tax muy wax ndax ñoo bokk ma ñoo bokk bàyyi mu ne xeet jëlewu ko sëñ Mbacke Bousso xam ne moo tax muy wax ndax doomu ni jaay mu ne doom it jëlewu ko